ci bureau ministre lay dajeek ñoom ñuy ñaanaatoo ko yappar yappari ak dunguru nee na dootul wax lu ñu gëm nee na nag incha allah bu ñu moytuwut dana leen weer dana génn wax journaliste yooyu tudd seen i tur loolu suñu bàyyi xaarim Samba moo ko wax dund bi nag Pastef nee na nag buñ ci yaakaar ak ak ak li nga xam ne mooy ak wàññeeku nee na nag bu leen ko yaakaar ndax lu tax nee na fii ak jëlewuñ fi un conseil bile ak conseil euh, économique et social environnemental fii ak fi ñaar yooyu dund bi nañu xam du yokk ndax ci li yokk dund bi bu ci xajee rek ñu ñëw ci mimee ngi ñëw gars yi nee nañu fa ñu jaaroon ak Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye fa lañ bëgg a jaar ak moom bund xatal ko génne ko assemblée waaye loolu moom du fi amee ci réew mi ne fi jigéen moom kenn du ko toroxal ci réew mi te ñu nekk fi incha allah léegi ñëwal ci euh, kii bi suñu bàyyi xaadim Samb waaw euh, sooy bu euh, lu ñuy wax de nit moom boo ko fekkaan sax si lu baaxul hmm. danga ko war a suturaal mais lu tax journaliste yi xëy dina jox ma nangam ma bind la nangam. jox ma nangam peut-être xam nga ñoom bu ñu même bu ñu dul def lu dul yoon sax. te te teg leen si bët soo leen mënee woo su ruq man jàpp man la ma xamoon ci nit ñu baaxee lu ñu doon def. Mm. pour ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko parce que tamit fii loo fi bind rek. Mm. ñu fay la xaalis sénégalais yi dofuñu. bu ñu bu ñu liiree euh, continue bi dinañu comprendre mais jàpp naa ne nag euh, toog di leen weer moom. Mm. fa dëgg yàlla ak grandeur bu mu am moom Xaadim Samb. Mm-hmm. mën na ko cee bañ a fekk parce que nu mu def ba dem ba fekk leen foofu ba taseeg ñoom itam. Mm-hmm. loolu tamit jar naa la nee na loolu ci maamam la ko doon buñ ko comme ni niñ koy waxee si ay maamam lañ ko doonnoo hmm. tamit peut-être kooku tamit li mu amee soxla ba dem ci ñoom ñoom it noonu la ñuy amee seeni soxla ba dem foofu noonu muy wax kon wax ji daal pour man mën nañ ñàkk Pastef nee na dund bi buñ ci yaakaar wàññeeku ah, ah waaw ku nekk ak sa gis-gis rek certes li tax ñu wax ko mooy au conseil boobu ñuy wax euh, parfois dañuy dégg ne alal bu bëri daf fay daf fay bàyyeeku Idrissa Seck nee na woon amul njëriñ am amul njariñ te tey moo fa ne moo ko jiite am looy wax ne amul njëriñ peut-être yow dalaa amalagul njëriñ bis bu la amalee njariñ rek bu boobaa dootoo ko waxatee hmm. xaalis ba fay génnee waa Pastef jàpp nañ ni su fekkoon ni génnewu fa bu ñu amoon fu ñu ko teg rek hmm. eh, dund gi cher gi metti lool hmm. peut-être dina wàññeeku moo tax ñu waxee noonu mais ñëpp xam nañ ni fi mu toll nii moom sooyumbu dëkk bi tar na tar boo xamante ne nii foo romb munoo romb ñaari nit yow déggul ngay wax diw gi cher na wala ceeb bi cher na te Sénégal nag war naa mën a bañ a àgg foofu te ñëpp xam nañ ni bu ñu doon am nu ñu doon doxalee di bay jéem a bay ceeb bi nekk fii mm. mais li ñuy wax rek saa njóogu chaque jour mu wax ko souvent dañu ko tooñee ñun jigéen ñi bëgguñu mukk consommer local dañuy bëgg rek jéggaani mooy peut-être di xooli ay parfum ak yeneen yi demee noonu euh, li nga wax si mii bi nañ ko bàyyi bu suba waaw d'accord ok waaw maa ko lépp ba suba ak jàmm incha allah ndax élément bi daa war a ñëw mm-hmm. njoogu suñu bàyyi da nee na dootul liir journal ndax euh, journaliste yu bëree bëri y wër bitam ministre lañ fi nekk ak yow yalwaan dina leen weer nag ndax xam nga ñaankat moom bëggul di dajeek moroomam euh, ca barabu ñaanukaay parce que day wàññi liñ koy may boo taxawee ab journaliste taxaw ñu ne la xaadim de lii laa la bëggoon a jox waaye comme que booy gis nga booy journaliste boobu ci bunt bi foo ma ñamal ko léegi ñooñ la bëgg a fexe freiné bu ko defee bu mu dajee teeg ñoom mukk ci bërëb ba ñuy ñaane mm-hmm. <laughs> li doy waar nag Euh, xam nga euh, journalistes yi moom il faut ñuy rapprocher ministres yeeg yooyu. waaw parce que dañuy xëy di joxe ay xibaar. xibaar léegi nag. peut-être moom dafa jàpp ni euh, dañu ñëw pour ñaan. Hmm. mais peut-être mën na nekk tamit ni dañu ñëw ngir def seen liggéey. xibaar parce que journaliste. dafa war di génne ay xibaar. Hmm. beneen saa yi ñooñu dañuy am kii yoo xam ne dañuy def il faut ñuy am ay audience ak yooyu di dajeek ñoom di leen kii bu fekkee ne moom dafa gis nag journaliste boo xam ne dafa ñëw ngir ñaan na wax ne tel journaliste la dafa ñëw di ñaan dafa ñëw di kii waaye bu ma dajateeg benn journaliste ministère nañ ma bàyyi man may dem di ñaani loolu mënul ne mm-hmm. donc xaadim euh, na kii par contre nag am na loo xamante moom léeg-léeg fay bor moom am na fi loolu moom defe naa xamante ni kii euh, xam nga ni yëf yi di doxee it di nga xam ni léeg-léeg journaliste bind loo xam ni wax dëgg fa yàlla da ngay xam ni lii kat mm. mbind mii euh, du am xelam maanaam dañ koo binduloo loolu nag journaliste bu koy def it defe ne yaa gën a muus nit ñi mm. booy boo xam ni yaa ngi nelaw parce que nit ñi mën nañu lire entre les lignes xam nañ ñi yëf yi doxee sénégalais yi dofatuñu nelawuñu nelawuñu beneen saa yi nga gis kuy nelaw di jéem a nelaw loo nit ñi fekk na yow njàccaar yi ñu ngi ne xujju di la xool yow yaa ngi nelaw ba noppi bëgg leen a loolu fooy jaar. fooy jaar donc comprendre nañ ñi yëf yi tëddee quoi. ayca waaw xam nga. waaw wàññi mënul ne. mënul ne waaw. lu tax parce que li tax mënul ne. mooy. du ñoom ñoo yokk. bu déet yokkuñu. ku yokk loolu mooy li gën a garaaw. ku yokk tey Sénégal. mooy dëkk boo xam ni dañuy jékki-jékki prix yi yëg te xamuñu fu mu yéegee kenn mënut a taxaw ne décret sangam moo yokku lii mm. moo yokku ceeb bi lii moo yokku lii lii moo yokku di lii moo yokku lii prix yi lii la loolu kenn mënu ko am mm. maanaam dañuy seetaan mm-hmm. bàyyi nit ñi ñu yokk yokk yokk yokk ba xaabaabal waaw léegi nag ñu jóg mm-hmm. ne ñu ngi wàññi mm-hmm. léegi ca lañ yokkoon fekk gars yi yokku nañ lu ca ne fukki dërëm bu ñuy wàññi wàññi ca ñetti dërëm ah bu ñuy wàññi wàññi ñetti dërëm donc kooku wàññu wàññi amu fa wala comprendre kon njëg yi fa mu nekkoon mënatu du fa dellu njëg yi du dellu fi mu nekkoon léegi nag ñoom chaque jour li ñuy fesal mooy seen ak wàññi waaye li koy yokk hmm. du seen yoon maanaam bu ñu yokkee fukki dërëm bu ñu waxoon ni wàññi ñu wàññi dañoo bëgg a basé wu ci prix yi fi ne te prix yi fi ne kan moo ko fi tegoon prix yi fi ne du seeni prix ñoom du prix yi ñoom ñoo ko waxoon prix yi fi nekk nag lañ war a lijjanti ba pare lu tax prix yi yegg si fii ok yaa ngi dégg waaw d'accord fi prix yi yegg si d'accord lu mu yegg si parce que gars yi dañuy wàcce bateau ceeb ne kilo nangam. ñu ne ah, ok ñu ne léegi nag lu tax na déggoo googu mun a nekk ñuy yokk ceeb bi ñii di yokk suukar si ñii di yokk bi tey jii bu boo toogoon ministre bi ne la euh, fi ñu bàyyi woon prix yi. mais prix suukar gi yeggut fii mu yegg si woon. kon nag alaaji kooku lu ko fa yóbbu. dafa def ndax koor ba moom. loolu mooy problème léegi nag bu ñu la waxee ne la léegi ñoom chaque jour xam nga Sénégal boobu ba nëgën. waaye léegi lan moo tax nañ la wax ne la président Macky Sall wàññi na fi ñaata yoon dégg nga fi ay ñaata yoon ñuy wàññi noonu waaw ay yoon wàññi waaw ñaata yoon nga fi dégg ñu ne yokk nañ li man li ma fi dégg kii laa fi dégg ñu ne yokk na ah maanaam di nga dégg ñu wàññi bi mu fi yokkee wax nañ ni yokk di nga dégg wàññi waaye doo dégg yokk waaw te yëf yaa ngay yokk te yaa ngay yokk loolu lañ war a lijjanti fekk ah. lijjanti waa léegi nag loolu lan moo ko jotaleeg Pastef di tooñ kon naan ñaari ministères yi moo tax affaire bi mais li tax mooy waaw tooñ li tax loolu di am te kenn contrôlé wu ko mooy waaw maanaam état bi day dundee loo xamante ni bii tey waaw euh, ay kiiwam loo xamante ni bii moo koy permettre maanaam état bi xam nga tey président Macky Sall lu mu ñoo ci ay ministre léegi ministre auprès du ministre waaw am na yow yow léegi ministre auprès du ministre loolu ban njëriñ la amul njëriñ. loolu def rajo rek laa ko daan gis ay kii animateur auprès de animateur ma jigéen nekk sama kon ay pré loolu lañ indi woon comme actualité keroog ma jigéen li ñu fi bàyyi woon muy euh, élément bu doy waar boobu. ndeke yow am na ñu ci gis seen bopp ba ma jigéen ndeke li tëdd ci ay problème mu mirage di nelaw ba ay yoon di ci am kenn xamul nu mu nu mu nu mu day déglul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi maa ngi lay siyaare bu baax a baax man la jëwrin daam Diop maa la doon woo tey ci suba bi ma dégloo émission Jommet bi ba noppi dama cee déglul ci fin bi lu ma intéressé lool muy wàllam euh, kii kër yi ñuy faral di mirage ñun dañ cee am benn Kaolack mu am problème boo xam ne problème bu ñu métti lool lool lool lool lool lool vraiment fi ñu toll ni dem nañ ba bëgg cee dem nañ ba fi ñu famille bi kenn ci laalanteeg sa morom te kër gi ñëw ko bokk te vraiment bind naa plainte jox ko procureur dëpp daaw di yëg di wàcc waaye dafa mel na daal affaire bi daal intéressé wul nguur gi te fi ñu toll ni yàlla tere yàlla tere bu ñu xeexoo woon ba kenn dee rek. Euh, mu dugg ci lu ne nekk wax fekk ñun lañu waroon def yëpp def nañ ko depuis mois de décembre daaw ba ren ñu ngi ci topp tribunal Kaolack di yéeg di wàcc sama kër ndey la sama benn magu yaay jël lëkkaloog sama nijaay bokkoo luubal ñu topp ci depuis bi ñuy nekk ay xale ba léegi di ci xeex léegi nag dem nañ ba doon ay mag ñu taxaw temm pour récupérer kër gi ñoom nangu ñoo wax dara lu leer koo wax mu ne xaw ma ci dara sama yoon nekk ci famille bi kenn nangu cee wax dara koo wax mu ne xaw ma ci dara léegi ñu dem tribunal boobu ba léegi ñu ngi dem tribunal jaabante a ñëw sonn nañ nag ñuy sàq ku ñu ci dimbale ngir jëm yàlla ak yonent bi ndax ay jërëm lañ suñu yaay dee na suñu bàyyi dee na waaw depuis quatre-vingts la suñu yaay de suñu bàyyi décédé wacc ma man ak sama ñaar rak ak sama mag bu jigéen suñu mbokk yi waroon ñoo jàppale aaral ñu suñu alal yaay defuñu ko lépp ñu séddoo ko fi ñu toll dañoo sonn lool lool lool ñaan ku ñu ci jàppale ngir jëm yàlla ak yonante bi jërëjëf bu jotee sama message loo ma wax rek ma xam lu ma ci teg incha allah ma dolli la li ma leen dolli mi ngi noonu ma jigéen suñu xel dem ca wax ja Joxaan yi daan wax euh, nee na bari na immeuble boo romb bu ca àqi nit ya génne woon waa ji ab pàkk sax du ko dese waa ji nag li mu jeexale message am bi daw na yoram loolu way juróom bu góor bu jigéen génn àdduna ca bu yàgg ñu pasar pasari seen alal ñoom ñu dëkkee coon waaw son yi bu bu 81 bu mu wax dalay leer ne boobu ñoom nekkaguñu mag. nii ñu nekkee mag. xam naa peut-être jamono jooju tollaguñu fu ñuy xamee ni ñuy lijjantee seen alalu wayjur yi. Mhm. peut-être mbokk yeeg ñii ñi nga xamante ne nii ñoo ci nekkoon ñoom ñoo ko pasar pasaree tey ba ba ba mënuñu cee am dara. waaye nag ñëpp xam nañ ni li yàlla wax ci miraas. Mhm. ustaas yi digle nañ ko ba tàyyi soit ñoom ñoo koy dégg ne ax ah, nañu hmm. def parce que gis jiital nañu alal bi tant que amuñu ko duñu am jàmm hmm. bu ëllëgee nag soo taxawee suñu kanamu borom bu boobaa problème rek la lay jural hmm. doy na waar daal te te compliqué na miraas waaw xam nga li borom bi wax moom waaw mooy li yàlla wax nit ñi moom li ñuy jëf waaw du ñu tàggoog di indil seen bopp ay jafe-jafe waaw bëgg a xàll seen parce ko gis nga lépp loo gis ci àddina hmm. te pareen saay la plupart ki koy njëkk a wax ci kër gi sax pour ñu def ko hmm. ngir leeral mbir yi sax boo defu ndànk noonu waa kër gi la boo xefee du ko fekkee sax dañ sax kii man ni dañ koy sungu bëgg a tas kër gi kii moo bëgg a yàq famille bi maa ma ni la ñuy seeti te fekk ne suñu borom moom li muy wax wax na ko mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. yàlla moo la gën a xam wallaay wallaay léegi li mu digle du ngeen ko def noppal waaw mu dee jeex mm-hmm. waaye dañ naan noonoo mm-hmm. am na loo xamante ni bii moom waaw vraiment moom wax ko moom wax kii la ñu ne kan moo ko wax ñu ne diw ñu ak ah, kooku si kooku du nitu dara waaw parce que yàlla yàq fam bi rek la bëgg waaw xam nga te fekk ne mu leen di wax mooy diine mooy li yàlla wax mm-hmm. donc gis nga problème yu bari nag mu ngi am lu mel noonu doon ko indi ñenn ñi naan dañuy rafetal te ñooy ñaawal ëllëg mm. dañ naan dañuy rafetal tey fekk ñooy ñaawal ëllëg comprendre mhm. ki nga xam ne moom lañ jàpp ni mooy ñaawal tey. Mhm. Mhm. moom moo nar a rafetal ëllëg parce que bu ñu toppee ay waxatam rek ëllëg jag. waaw te li ci gën a doy waar alaaji. waaw euh, xam nga bu dee ay mag amul problème. mais li gën a doy waar mooy ay famille bu gaañu. bàyyi ay xale yu ndaw. waaw alal ja ña leen yore duñ ko fa sàmm comme li ah, dal ñii. parce que dañuy ñu ne ah. xale yi duñu màgg peut-être. Ah. parce que xamuñu dara ñu ne rek nañ ko jël parce que. ñuy noos rek xale màgg. donc loolu en tout cas daal Biraas euh, moom saay def ko daal ni nga xamante ni noonu la ko suñu borom waxee. ku si def loo ah, waaw mais kii boo ko lekkee. alalu koy gis. wala dégg ñu naan ma ngay neew yeeg ba kollu baa ngay jóg kii lekk lu bon rek moo tax ah, da ngay xool. la am na ñoo xam ne balaa ñoo dee fu ne dinañ fa neewi mm-hmm. ah, parce que lekk alal ju bon kese lañ fi nekk. billaay dañu waxante dëgg am na loo xam ne seen gestion yi bu kenn. nga ne fu ne nañ fa lay ah, fu ne fu ne eh, dañ koo liggéey fekk kenn liggéeyu ko. ok fooy yàggal lekk. Ah. alal ji bon kon day ah, dalay indi lu mel ni liggéey suñu borom dala koy wan fi boo defee ñu dañ koo liggéey ñaan dañ ko liggéey kenn liggéey parce que da nga lekk alal joo xamante ni bi waru ko am na yoo xamante ni bi tey yow nga defe ne ñii ñuy <laughs> jox ay kii ak ay poste ak yooyu ñuy lekk xaalis nga defe ne dina leen jik leen jigéen ñuy mbër xool ci ku ci ne yaa ngi ay carnet ordonnance yoo xamante ni bii fu ne ngay faj faju ji hôpital bu ne wër nga ko boo dem ñu ne la mënuñu laa faj nga yàlla ca baccat parce que lay feebarloo kenn du ko gis alaaji da nga appoisonné sa yaram yëpp ah euh, sondage bi nga fi doon wax ci télé yi xam nga gars yi ñoo daan tëju ci bureau di ko def ah. internet baa ngay def nag hmm. petit des ña ngi koy wane wal fajire nga quatre-vingt-cinq TFM hmm. ma nga cinq hmm. maanaam ci ñu ko voteel daal ci ñu ko voteel seen TV ña nga set trois gisoo ko fan yi ci internet bi la gaa yi xewal. ah bon dañuy tegtale yëpp daal ni sondage vote leen vote leen. boo gisatee del dugg ci biir nga xool. Ah. waaw léegi moom kenn tëjootul ci ay bureau di ko def. waaw ah, léegi moom loolu moom am loolu moom mooy joxe. nga ca net ba. ma nga ca gaa yi joxetuñu xaalis di sonde. <laughs> Ah? léegi de waaw ma nga ca net ba de. peuple bi ñooy ñooy ñooy waaw léegi moom gaa yi ñooy voté direct. ñooy voté waaw TFM ma nga ca cinq ñu ko voté. cinq personnes Walfadjri nekk quatre-vingt-cinq. Eh tele euh, bu zone ba ma nga ca euh, kii benn. benn oh. xam naa kii ba directeur baa woote. <laughs> xam naa bugaana woote. <laughs> <laughs> ok gën leen gën leen gën leen gaaw maa ngi koy nuyu